amati nañ mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital nuyoo gi ci suñu kanamu kilifa gi gi nekk ci suñu kanam muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké suñ borom bàyyi ko ci suñu kanam te mu ànd ak bu wér ba li nga xam ne moom la ko fi maamam bàyyiloon muy liggéey bi mu yàgg ko doxal te mu ànd ko bépp taalibe ci barke xasida yi bu ko defee dañuy nuyu ki nga xam ne moom mooy xalifa général des Baye Fall muy Serigne Amdi Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziar. te li nga xam ni am na ko muy liggéey moom tamit suñ boroom may ko ci gudd fan ak wér te mu ko yàgg doxal di nuyu ki nga xam ne moom moo nekk sëriñ Touba fii ci Thiès di sagu bépp murit muy sëriñ Saliou ture ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal tamit gudd fan ak jóorinam ba sa daara ja muy sëriñ seexu naa ture liggéey bi nga xam ne sumb na ko suñ boroom bàyyi ko fi te mu àggale ko jàmm ànd ko bépp taalibe ci barke xasida yi suñ jotaay tey bii nag jotaay la boo xam ni dañu am mbégte lool di ci ànd ak yéen ndax ñëpp xam na ni daara man mu nuuree ni dañu am événement bu ñu war a amal ci ñaareelu fan si weer bii ñu jëm muy juillet ñu war ko amal si kanamu kilifa gu tedd gi muy Cheikh Mouhamadul muntaxa Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ba tax na ñu woo ñi nga xam ni bokk nañ si ñu ŋànk liggéey bi muy wàllum commission d'organisation ñu invité si soxna joor njaay ak soxna Dégène ñu fas yéene ñoo wax ana naka lañ ko war a waajee waaye balaa loolu dañ leen daal di bàyyi ku ci nekk daal di nuyoo rek ñu soog a dellu si waat si si waxtaan wu yaatu incha allah rabbi soxna Dior bismillah. salaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar euh, di gërëm bu baax soxna Ndeye mi ñu invité tey kontaan nañ ci lool. kàddu yi rafet na macha allah soxna Degen bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullah soxna Ndeye ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu wér. di rafetlu taxawaay bi ak di rafetlu invitation bi ñu bi ñu. defal ni nii lu jëm ci wàllu ziar bi ñu war a amal ci sëñ Muntaxa le deux incha allah ñu ngi tuubaat bu baax ci kàddu yi. ah soxna rafet na kon xam naa dañuy daal di commencer rekk ci liggéey bi ak soxna Joor dañu bëggoon xam ziar bi ñu amal le deux bi comme que yéen yéen a wàllum commission d'organisation bi ci wàllum cuisine suñ ko déggee mooy li nga xam ne li ñu war a xewloo lépp foofu la war a jugee na naka ngeen ko war a waajalee ak ban yëg-yëg ngeen ci am bismillah. waa question bi am na solo lool mi mel ni commission d'organisation moom dafa yaatu ndax commission d'organisation dafa boole cuisine café accueil ak hygiène sëñ bi nag dimbali ñu ba ñu ñu nekk ci cuisine war ko faa mën a liggéeyalee. yàlla dogal na nag cuisine dafa nekk commission boo xamante ne bokk na ci ëpp importance yi ci commission yi ndax fu mbooloo di daje rek xéewal munu faa ñàkk surtout maa nag jotaayu murit ñu ñu waajalee ko ak effectif boo xamante ne bëgg nañ bu ñu demee ba foofu noonu dinañ mën a lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllu xewlu yi rek dinañ ko mën a matale tamit ci ca heure ba mu waree tamit bëgg nañ tamit buñ ñu demee ba foofu noonu jaxasoo ba fa amoon ndax yàlla dawaloon na ne daaw moom commission bi dafa xawoon a yéeme lool ren tamit bëgg nañ buñ demee ba foofu noonu dinañu di mën nañu ràññee ñi nga xamante ne ñoo nekk commission cuisine bëgg nañ tamit ba buñ demee ba ca service ba incha allahu rabbi képp koo xamante ni yaa ngi ci commission bi soo demee fépp foo xamante ni jëwriñ nee na la rek nga yem fa rek nga yem fa ndax liggéey bi dafa yaatu lool te liggéey sëñ bi ku koy def waroo di xëccoo ndax ka nekk ca cuisine bi di dagg soble ak ki nga xamante ne ndox dong lañ ko laaj bu ko xeep ndax sëñ bi buy fay moom xool lay fayee ñu bëgg rek bu ñu fa demee incha ñu def ko ci ci anam ya mu gënee def ko ca na mu waree ba buñ fa jógee taw fa tawféex yi mën ñoo dal mais doo dem ba foofu di fa ut tawféex ndax dem di ziar pour jëli fa ngëneel di fa def loo xamante ni amaana sax danga fay jëli ak rëccu di tuubaat du baax ci kàddu yi. macha allah soxna joor kàddu yi rafet na trop xam naa ñu ngi dellu si waat si kanam rek kon soxna Degen yow tamit amaloon nañ la laaj. maanaam nga wax ñu comme que yaa ngi si wàllum hygiène naka ngeen di waajalee ziar bi ak ban taxawaay ngeen si war a am. asalaamaaleykum euh, soxna Ndeye ñu ziarat bu wér di rafetluwaat euh, invitation bi xanaa ñun moom dañuy yëngu si wàllu hygiène. hygiène moom buñ ko waxee daanaka lu am solo la si si si lépp mbir boo gis te at yi si ginnaaw day mel ni hygiène amul benn soxna de ce moo tax. ñu jéem a fexe ba fi mu ne nii moom hygiène la fa nekk ci ay soxna macha allah góor yàlla yi liggéey bépp bu ñu war mën a def ñoom mën nañ ko lépp buñ fa nekkee ñu nekk bañ faa nekk yépp dañ koy def nu mu waree si loolu ñun euh, répartir nañ tamit hygiène bi si des groupes groupe bu ci nekk benn dañuy jël benn groupe def ko ci waañ ba dem beneen groupe dugal ko ci mbooloo mi muy euh, nekk di for buus yeeg yu ni demee di yeesal à chaque fois beneen groupe bi mooy nekk ci toilette yi di remplir satala yéeg ñu yu ni demee lépp daal lu nga xam ne soxla nañ ko ci set ci ziar lépp ñun moom wàllu boobu ci yooyu la ñuy yëngu te ci loolu noonu lañ mën a liggéeyee sëriñ bi jaayeen def. kàddu yi rafet na trop dafa mel ni xam nañ. ñoom naka lañ ko waajalee waaye tamit du ñu am foofu rek dañuy ñëwaat ci Soxna joor mu fas nañoo xamal ana yan dispositif la ñu jël ci ziar bi ba xam bii day gën a kawe yi fi jot romb wala. waaw incha allahu rabbi de bëgg nañu ziar bii nii bokk ci ziar yi gën a kawe ci ziar yi ndax ci loolu sax ndax bëgg nañu organisation ren di bañ a bokk ak benn organisation ndax mën nañu fépp foo xamante ne mbooloo dafay daje rek. organisation ba na muy na muy doxee mooy def différence ak ak yeneen euh, jotaay yi ndax jotaay pour nga am ci la nga bëgg faaw organisation bi normal loolu ci loolu euh, ki nga xamante ne moo nekk jëwriñu organisation bi dafa proposé woon ñu defar ay julet léegi julet yooyu mooy tax ñu ràññee ki nga xamante ni mu ngi mu ngi cuisine mu ngi kafe wala mu ngi hygiène loolu day tax tamit képp koo xamante ni ñëw nga ci fa waa cuisine di liggéeyee te bokkoo fa dinañ xam ne kii kat bokkul ci ci cuisine bi nga mën koo wax ak moom ciy teggin ba mu mën a dem bu fekkee daloon doon durus mu dem durus fekkoon tamit dafa bokk te ñay jàng mu dem jàng su ko defee benn perturbation du am liggéey bi du yàqu te li te ni nga ko bëggee di nga ko amee jaa ngeen jëf. ah kàddu rafet na trop kon ñu ñëw si soxna Degene rek moom tamit buñ jugee si cuisine dañuy daal di dem si hygiène <laughs> yéen tamit yan dispositif ngeen jël si ziar bi. waa soxna Ndeye. comme ni ko soxna Dior Ndiaye waxee rek xam naa ni euh, ren moom incha allah ziar bi dina gën a taw feexe parce que ak gilet yi rek ku ci nekk mbooloo mi képp ku am soxla ci benn membre ci organisation dina gën a disponible si yow lépp lu nga xam ne soxla nga ko muy ci wàllu cuisine wala mu nekk ci wàll yees lu beek ak ci wàll foo bëgg dem ak yooyu noonu yëpp euh, gilet yi dina la permettre dina gën a jàppandi si ñëpp. te dina dina dina dina nekk lu nga xam ne daal kii comme ça mooy nekk suñu carte d'identité ñun waa organisation incha allah. maanaam daal gilet yi mooy li nga xamante ne noonu lañ leen mën a ràññeewee entre ak yooyu noonu. waaw day mel ni noonu la de parce que gilet bi benn bu ci nekk rek dinañ ci bind ku ci nekk commission ba nga nekk gilet bi dinañ ko ci bind de fait soo soxlaa. benn commission si gilet boobu boo xoolee rek di nga di dina di nga mën a sa aajo dina mën a faju incha allah. macha allah kàddu yi rafet na ñu ñëwaat ci soxna Dior rek dina am amaana loo xamante ni daan na am mais kaa neexu leen mais da ngeen bàyyi ba ñëw soo ko waxtaanee yan tere ngeen bëgg a aborder. mën nañu ni am na ay kàddu soxna yoo xamante ni avant jaar ba ba léegi bañ dalee waaj jaar ba léegi ñu ngi ciy def ay sox ay ngoon soxna jaara di di ci jàllale ay message ci groupe yëpp pour soxna yëpp bàyyi ko xel ndax la amoon daaw ziar ba loolu ñëpp dañ ko dañ ko ñaalu woon ndax jàkkaarlook sa kilifa di tëb di yuuxu ak di sinap loolu yëpp ak dem ba jumaaja di ziar dem ba ci barab bi di sinap tamit loolu yëpp ñaawlu nañ ko te lu dem ba ay nit ñi loo xam te ne suñu biir lañ koy waxtaanee ndax moo gën ñu dem ba génn ñeneen ñi di ko remarqué mieux vaut ñu waxtaanee ko suñu biir ba képp koo xamante ni yaa ngi dem jàkkaarloog sëñ bi émotion bi lu mu rëy rëy mbégte mi lu mu diis diis ñu jëm koo ñu muñ rek te xam bëgg sëñ bi moom dafa nekk loo xamante ni c'est inconditionnel parce que kenn ku nekk ba ci jëwriñ bi la jiite sax mun la ni maa la gën a bëgg sëñ bi daf laa gën a kawe ci liggéey bi rek ndax bëgg sëñ bi dafa nekk loo xamante ni ci xol lay nekk kenn munta taxaw ne la maa la gën a bëgg sëñ bi waaye kenn mën naa taxaw ne la maa la ëpp respect ci kanamu sëñ bi donc bu sëñ bi génnee nañ am ak taalibe nañ am respect ba bu génnee dinañ mën a wàcc suñuy bët ndax man damaa ñaawlu sax ku mel ne sëñ Muntaxa Basiru ki fi teewal sëñ Touba di sëñ si ñun génn nga xool ko kaw ba suuf amoo benn keese sëgg loolu ñàkk teggin gënu koo gënu koo rëy ñu fexee rek def ba lu tuuba bu sëñ bi génnee dinañ mën a maîtriser ak lu mu metti metti rek ñu jaayante ko ak sëñ bi rek ñu maîtriser toog calme ziar tàllal ko ay loxo mu ñaanal ñu parce que ñaan rek moo ñu tax a jóg. lu mel ni nag wàllu bag beeg yooyu noonu ay big ak ay ndox sëñ Tuubaa boo toogee ci biti sax boo demul ziar ba sax te toog sa néeg ñaan ko mm-hmm. mu may la te bu lay may da lay may li gën ci yow. nga nekk ci liggéey bi def bag amoo bu mu la tax a bàyyi liggéey bi xamal ni dafa gënul ceew yow xam loon ko am te doo ko jëriñoo hmm. donc ñun dañuy liggéey sëñ bi te xaaruñ ci moom dara bu doon bac rek la ñuy moom kon jarul ñuy dem si moom bu fekkee ne dangaa nekk si moom tey xaar di xaar dara ci moom kon yow nekkutoo murit ndax dangay dangay liggéeyal sëñ bi te a xaar ci moom dara di di soññewaat ci wàllu juillet yi rek parce que commission d'organisation képp koo xamante ni amagoo juillet di la soññ nga dem ci sëñ Lamine nga nga jox ko juillet parce que juillet bi bëkk na ci loo xamante ni ci lañuy mën a xàmmewee waa organisation bi di Touba du baax ci kàddu yi. macha allah defe naa ni jot nga wax lépp kàddu yi rafet na trop waaye kon ñu ñëwaat si soxna Degen rek yéen tamit xëy na seen wàllum hygiène bi dina am yoo xamante ni di koy tere ndax des fois day faral di am. ngeen teg nit ki fee moom mu bëgg a aakimoo lépp wala ngeen teg ko fee moom mu bëgg a dem feneen ngir lan ngir ni dama bëgg a liggéeyal sëñ bi rek te fekk ni ñun ñëpp loolu moo ñu tax a jóg waaye ku nekk day am parti buñ la yóbbu ñu bëgg nga leeralal ñu foofu rek. Ah, euh, soxna Ndeye xanaa ñu lay santaat bu baax rek xanaa lu ci jëm ci ku ci nekk daal fuñ la yóbbu ngir yàlla dañ la koo ñaan nga nga jéem faa nekk parce que fépp fuñ teg nit te nekku fa bu fa jógee rek lépp lu fa xew rek moom mooy responsable bi donc lépp lépp luñ leen sant muy man di keneen ak keneen man mii lépp luñ ma sant naa ko te fexee def ngir jëmmi sëñ bi xam ne organisation bu jagee rek lépp jag parce que ñun ñëpp si ñun la ñuy xool donc nañ fexee liggéey bi su doxee rek si suñu côté incha allah lépp dina baax te nañu veillé bu baax si tegginu gën a gën a fonkaat barab bi gën a xam ne ñun bu ñu tegee suñu tànk Touba rek day mel ni gis gis nañ sëñ bi donc képp ku toog tamit bu sëñ bi génnee soxna yi ñu ñuy fexe di bàyyi xel nekk seen ginnaaw ku toog ñu nekk ci kanam nañ may ñi ci ginnaaw ñu toog ñoom tamit bu ñu toogee rek ñi ci ginnaaw nañ gis loolu loolu day tax du du du tax xëccoo beeg yooyu noonu yëpp du am te tamit ñun ñëpp ku ci nekk di nga am ay émotion ak affaire yu ñu deme nañ fexe bàyyi ci xel xam ne ñëpp ku gis sëñ moom sa yaram war naa daw mais nañ nañ nañ bàyyi xel que ni foofu ñu nekk rek daa am luñ luñ luñ fa indi te bëgguñu loolu ñu fa indi ñuy dem di ko fa bàyyi. donc nañ nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax teggin ñu ngi tuubaan baax si kàddu yi. maanaam daal ñuy jaayante ba yooyu yëpp ñu jëm ko éviter. waaw ñu jaayante man moom suñu commission moom hygiène incha allah loolu moom dinañ si taxaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm. lépp lu si war dinañ ko def teggin moom incha allah fépp fu ñu fekk nañ ko doxal dinañ jéem a waxtaan ak mbooloo mi ba ba kenn du mer daal te dinañ def lu ñu war a def incha allah. macha allah kàddu rafet na. xam naa man moom lu ma si yokk bëriwul lu tuuti lay doon maanaam bu ñu demee foofu durée bi yàggul benn fan rek lay doon kon buuxante beeg sa moroom laal la nga ne ko puus ma yooyu yëpp mën na fa ñàkk ndax des fois day am si nit bu mbooloo bëriwee il faut ñuy laalante ak di buuxante mais ñu gën a sàmmante suñ biir xam ne ñun ñëpp li ñu fa yóbbu mooy ziar sëñ bi rek ak liggéeyal sëriñ bi te incha allah rabbi bëgg nañ ko defee noonu kon xam naa damay daal di jox soxna joor njaay rek mu wax kàddoom gu mu joxe kàddoom gu mujj. waaw soxna ndey muy mel ni de kontaan nañ loolu ci invité bi ñu invité di fàttaliwaat rek suñu bokk soxna yi. que ni dem ziar moom dafa nekk loo xamante ni yàgg nañ ko fay fekk dem dem ziar sëb sëriñ bu ñu ko mënoon def chaque jour sax dañ koy def yàlla ñu ba at ba at lañ koy def nañ dem ak teggin. dem ba luñ lañ fa bëgg lañ fa tax a jóg ñu def ko te sëñ bi ñaanal ñu ndax loolu rek moo ci am solo jaa ngeen jëf. macha allah soxna Degen xam naa nga joxe sa kàddu bu mujj rek ñu mën a tëj. waaw day mel ni ñu ñu kontaan si invitation bi ñu defal macha allah. Ah, di di soññuwaat rek di di wax ni moom ziar bi egsi na ba pare ñu ñaan ñu dem si ak jàmm ñibbi si waat ak jàmm ak salaam. ba lépp lu nga xam ne bëgg nañ ko fa aajo yëpp ñu faj ko yooyu noonu yëpp ku amul paas yàlla taw feexal la sëriñ bi gën laa taw feexal ba nga am paas ñun ñëpp ñu dem ak jàmm ñibbisiwaat ak jàmm incha allah jaa ngeen def. jërëjëf mbokk yi baaxoo di seetaan seen télévision man mu nuuree ni ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax te di leen wax ngeen gën a fas kóllëre bi rek di gën a abonné di gën a yokk j'aime ak commentaire yi. waaye tamit du ñu tëj rek te du ñu remercier ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal si liggéey bi muy Serigne Cheikhouna bi nga xam ni moom moo wàllum cadrage Serigne Matar bi nga xam ne moo wàllum soo Serigne Mbacke mi nga xam ne tamit moom moo wàllum rési ak suñu jëwriñ di Serigne Baara nga xam ni moom moo wàllum montage kon xam naa dañ leen daal di jox di daje si bisub ziar bi incha allah bi ñu gën faa yaatal plateau yi. ko